ko journal bi bindee yéenekaay gi nee na lu jëm ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama ak lu soxal wàllum démocratie jamono ji mën nañoo jàpp ne amatul ci réewum Sénégal te moo ne Sénégal maanaam exemple la woon Sénégal royukaay la woon ci Afrique de lu jëm ci wàllum démocratie waaye nag jamono ji Sénégal nekkatul ab royukaay ndax gis nañ ne 2007 jàpp 2020 Sénégal ñàkk na lu toll si juróom-ñaar ci ay poñ yéenekaay gi ne na Sénégal nag jamono ji boole nañ ko ci réew yi nga xam ne réew yi amul démocratie Sénégal considéré tuñ ko comme réew yi nga xamante ni daal maanaam démocratie ma nga fay dox yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na deltu ginnaaw gi nga xam ne Sénégal deltu na ko ginnaaw ci wàllum démocratie li nga xam ne moo ko waral mooy opposant yi nga xam ne dañu leen di teg loxo di leen di dugal ci kaso bi ñii ñu leen di exiler journal bi nee na loolee moo ko waral yéen a kaay gi de le quotidien nee na en tout cas li ambadesal lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ak wàllum démocratie ak wàllum état de droit Sénégal ñàkk na ci ay poñ yu bare bare bare yéen a kaay gi di ko yokk ci wàllum ger gi wàllum ger gi kuréel gi nga xam ne mooy LGBT te lépp loo xam ne jëm na ci àq ak fu ñi nga xam ne borom ñaari tur yi lañu ñooñee li daaneel Sénégal bokk nañu ci yéenekaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Makhtar Souran bi nga xam ne mooy coordonnateur grand cadre unité ñoom nag nee ñu seen coalition boobi daal du coalition électorale waaye nag a coalition la boo xamante ni ngir xeex moo ko tax a jóg ngir nag jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Macky Sall yéenekaay gii di Rewmi Quotidien Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na gaa yi bu ñu paree ci complot bii nga xamante ni lalal nañ ma ko beneen complot bi ci topp daal mooy lu jëm ci wàllum terrorisme yéenekaay gii tudd la mandat nee manipulation yi nga xam ne ñoo ngi koy def ak diabolisation yi jëmale ko ci Ousmane Sonko bëri na loola yéene kaay gii de la ñi nga xam ne ñoo jege Macky Sall dañu koy yàqal ndax Macky Sall nee na nooy te ñi nga xam ne ñooy ay farandoma ñoom daal ñoo ngi yëkkati ay kàddu yoo xamante ni kàddu yee fitna la ba pare ay tojaange ndax yow ki nga xam ne mooy Macky Sall ba mbir mi xewee daal nee na na nooy waaye nag li nga xam ne nemmeeku nañ ko fan yi ñu génn ca diwaanu ni fu ko neex benn yoon ki nga xam ne mooy Macky Sall maître Malick Sall ministre de la nga xam ne yëkkati na ko ca maatama kàddu yooyee tamit du neex Macky ndax moom ministre bi ginnaaw kàddu yi mu fi yëkkati woon nañ ñi nga xam ne ñoo wàccoon ci mbedd mi ay mbër lañu waxaan na kàddu yu doy waar ndax nee na ñu bare ñoo xamante ni faatu nañu ay jegeñaale yi Ousmane Sonko moo leen rey journal bi ne na yu maître Malick Sall yooyee munta neex benn yoon Macky te nag ki nga xam ne mooy Alioune Dumourou Sow ginnaaw tojaange yi nga xam ne defoon na ko fi fan yi ñu génn na na nooy yéen kaay gi di Vox Populi nee na coronavirus bi ma ngi ci réewum Sénégal te jamono ji rassemblement yaa ngi mel ni tulleeg màlle yéen kaay gi da la témoin nee na kay ñetteelu vague bi jamono ji ubbil nañ ko bunt yi enquête yéen kaay nee na chaîne politique bi jax na loola yéen kaay gi réew mi quotidien nee na ñi nga xamante nag ñooy ndaw yi ci réewum Sénégal jamono ji nag seen ëllëg dañu ko bëgg a yoral seen bopp ndax nag gis nañ engagement bi nga xam ne ndaw yi amee ko moo xam étudiants yi xam commerçant yi moo xam ouvrier la ndax ndaw ñi léegi ci réewum Sénégal boo dégloo seen discours yi yi saf sap app lay li nga xam ne nag mooy réseaux sociaux yi moo tax léegi ndaw ñépp xam li xew yéen a gii de nee na Assane Diouf di Guy Marius Sagna di Clédor ak ku si mel ni Birame Souleye nga xam ne démb doon nañu leen déglu journal bi nee na juge troisième cabinet ak juge huitième cabinet ñoo doon déglu ñoom Guy Marius Sagna dossier bi nag dañu koo jëlee ci ki nga xam ne mooy Samba Sall la tax ñu jëlee ko ci Samba Sall mooy Samba Sall ci boppam dafa feebar maanaam Samba Sall une semaine ma ngi nii mu am ay jafe-jafe ci lu ay ministre ak directeur généraux yoo xam ne coow li bi muy cobbar ñee daal ci réew mi dañoo daw laaxatu ji nag ñoo ngi génn ndànk-ndànk yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na fanweeri millions yi nga xam ne état bu Sénégal jox na ko kuréel gi nga xam ne ñooy commission croissant lunaire jamono ji xaaj ji lekkoo nañ ci seen biir trente millions yi tas na kuréel ga kuréel goo nga xam ne Mourchid Yane Thiam moo ko jiite woon good fine jamono ji nag trente millions xaajale na ñi a kaay gi di libération ak la ne ajjuma na mentañ kenn gisule na ba léegi nii daal kenn kese lañ si gis ku tudd Malick xam ne bi ñu koy gis ñoo ko gis sa ngoor dafa ñàkk bakkanam journal bi nee na ñetti nappkat yooyu nag ñoo nga dëkk sa caaroy sur mer yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na accord yi nga xamante ni état bu Sénégal def na ko ak union européenne jëm ci accord de pêche yi loole ne na ñi nga xam ne nag ñooy nappkat yi bu ngeen gisee daal ñu ñàkk seen bakkana dañuy dem ba sa njobbaxtalu ndox ma la gi di las nee na réew mii di Sénégal bëriwut loo xam ne yokku fi maanaam njëg yu bare bare bari dafa yokk journal bi nee na lu jëm ci wàllum loyer lu jëm ci wàllum ndox lu jëm ci wàllum gaz lu jëm ci wàllum électricité ak produit yu bare yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo jamono ji nag maanaam yokk na ba maara day taal yi yéen kaay gi di Stades nee na match bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Congo Brazzaville am na lu toll ci fanweer ci ay gaynde yoo xamante ni teew nañu yéen kaay gi di sunu làmb nee na combat Modou Lo Ama Baldé seen première jàkkaarloo dina saf sàpp juróom